maa ngi lay fay Mati Ndiaye. waaw maa ngi fay. waaw. waaw mais monsieur moom. ah am lu raw lii. ndax xolam moo rafet. yëpp bu baax la yii bu am nii da koo mérito waxuma la sax ouverture bi mais. jaamu yàlla yi fi daje yëpp borom daraja yi fi daje yëpp lii rek mooy wane ni moom xolam dafa rafet yal na ko yàlla a may mu ubbi ko ubbi ay restaurant yu gën a mat yi dem ba fi ñuy tudd ñu gën a mat gën a tukkal ñi ngay dégg ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen yal na ko yàlla may lu ko ëpp rek lii dëbi la rek xolam rek la ko yàlla waaw. waaw mais di leen wax ni ñu roy ci Boucher rek ndax seen télé wax rek amul njëriñ li am njëriñ mooy nit boo nekkee ci réew da ngay contribuer ci développement wu dëkk ndax Boucher bu dul lu am lu mën a am tey histoire bind na ni tey Boucher Ketchup bu dee cinq sénégalais Boucher mi contribué wu la ci liggéeyu askan bi contribué wu la tey ci xale yi nga xam ne tey dañoo nekk fii tey nekk en chômage bu jël même bu dee juróom tey loolu dootul dañ ci àddina moo leen di liggéeyloo di leen fay di wax ni moroomu influenceur bi ak influenceur nañu roy ci moom rek am nañu nag ñoo xam ne gis naa leen am nañ ay boutique bu ne xale jigéen ñi majeure partie influenceur bi di nekk am nañ ay boutique di jaay ut ay nit ñu leen seen boutique mais loolu mooy développement adduna mën ngaa ci benn affaire mais foog nga am benn vision bu a kawe lii di rafet di wax ne yàlla ci yàlla defal jàmm dafa ko xéewal ñii nekk ay restaurant yi restaurant yi waaw pare nañ bu non mais Zénith bi Zénith bi parce que def na un mois et demi bu ñu duggee ci mois de juin dañuy arrêté lépp mois de juin premier juin ba vingt neuf juin ça fait presque un mois la ñu neex bientôt mardi day dem Espagne benn festival bu mu war a dem foofu daanaka foofu billet yi jeex na bu yàgg la ko promoteur wax ko ko bu war na dugg biir Paris bu duggee biir Paris fii ak la trente war na ko fekk fii parce que dañoo war a album bi nga xam ne mooy accompagné ànd ak moom dem seen incha allah. Sidi Wala Wali mooy magam ci musique Pape Diouf papam la Youssou Ndour baayam la Baba Maal baayam la Fallou Dieng baayam la non mais jeunesse bi jeunesse bi parce que def un mois et demi bu ñu duggee ci mois de juin dañuy arrêté lépp mois de juin premier ba vingt neuf juin ça fait un mois la ñu neex ak nit Sidy bientôt mardi day dem Espagne benn festival bu mu war a dem foofu daanaka foofu billet yi jeex na bu yàgg ndax démb la ko promoteur bi wax bu ko war na dugg biir Paris bu duggee biir Paris fii ak le 30 war na fii parce que dañoo war a préparer sorti album bi nga xam ne mooy accompagner ànd ak moom dem seen incha allah. waaw léegi Sidy moom bu invité wul Wally kenn lay invité. Sidi wala waali mooy magam ci musique Pape Diouf papam la Youssou Ndour baayam la Baaba Maal baayam la Malick Guèye baayam la Salam Diallo baayam la Wally Seck magam la te ma wax léegi rek Sidi bu doon dem si nit invité wul Wally Seck man ma xam ne ku bon la a nga lu tax parce que bu dul dara bu dee benn fan li muy góor nekk xale Wally nekk ci digg ndëndam baal si na magam magam yëgal ko ci kaw seen présidente bu sénégalais waa kooku bu demee ba war a tëgg ci magam dëgg war naa mën a dem nag tàllal ko loxo ne ko ñaanal ko te ba mu demee Wally yemul ci ñaan ba pare conseillé ko parce que xel bu doy ki ci sëriñ bi mooy Matar Diop su ma dem bu ma wax na ko dégg kooku su woote woon Zénith moom kese yóbbul artiste yóbbul kenn bu demee taxaw digg Zénith Zénith day fees mais dafa loo xam ne cër la ci nit ñu cërale ay baayam cërale ay magam cërale ay rakkam aussi kon bu invité waaj waaj bu ko mën a génne ci musique sénégal kan moo mën a génne Wally ci ñetti waykat yi a xaway Sénégal kan moo ko a génne amul amul kon boo seetee Youssou seeti Pape Diouf par force da ngay seeti Wally ndax dafa bokk ci musique bi ba pare am nag lu mu def ci musique mën a waye lool nag bokk ci ba pare xam yoon kon bu ko invité da ko war a invité bu ko invité woon da ko war a ku wax nag naan Sidy dafa dem pour lii wala dafa dem pour laa moo tey suba suba bu organisé waatee beneen événement day defaat ci magam ndax waale nee na ko nga dóor nit bi mu daal nga ñëw ma ànd ak yow ñu songu bët waale ko wax lii sama kanam maa ngi toog kon Sidi ku naan war nga woon dem ci waale Sidi moo tay suba day delluwaat kër waale fi mu ne nii li ma lay wax lenn la sénégalais yi nañu naan wax mu sedd nga xam ne jàmm ji jàmm gënu li am nii diggante waa Leeg Sine jàmm gënu ma nag ma ngi profité di di gërëm aussi ku ci mel ni Papa Diouf ndax def na ci bu am solo en tant que mag en tant que frère en tant que responsable tant que aussi tamit kilifa lépp ci Pape Diouf la dooree. ndax mooy suñu mag moo tax ñu dugg ci showbiz moo tax ñun ñu xam showbiz te bi ko Sidi seetee nee na ko demal nga seeti sama waat Sidi xëy xëyaat dem kër Waly Waly aussi conseillé ko dolli waat ñu xëy ci dox yeneen porte yi te pareeguñu nag ñëpp la ñuy wëri ndax suñu nga xam ne jàmm ji jàmm gënu ko li am nii diggante waa rek si jàmm gën ma nag ma ciy profité di di ci gërëm aussi ku mel ni Papa Diouf ndax def na ci liggéey bu am solo en tant que mag en tant que frère en tant que responsable en tant que aussi tamit kilifa lépp ci Pape Diouf la dooree ndax mooy sunu mag moo tax ñu dugg ci showbiz moo tax ñun ñu xam showbiz te Sidi seetee nee na ko demal nga seeti sama waali Sidi xëy xëyaat dem kër waali waali aussi conseillé ko dolliwaat ko ñu xëy ci dox yeneen porte yi te pareeguñu nag ñëpp la ñuy wëri ndax Zénith nag ah loo mën a wax du mu ndaw nag presque dix mille places nekkul lu ndaw di ñaan yàlla ñu mën ci ak jàmm jënd ci salaam incha allah Sénégal yëpp ñu woo. sol bi yàqu na day gën ndax Waly bu ñu tuddee suñu doom suñu tuddee ko doom léegi soo dugg gën naa yàq ndax Waly li mu dee si nii suñu ko ko ba ñu ba ñu ba ñu rayante kii ñoom ñaar man xam naa ko man mii yow xam nga ni man maay showbiz yow xam nga ni man maay showbiz man rek ko Makhtar Diop bu xam nga ni maay showbiz foofu laa yem dama ne la. lii am ni dañu xaar sutura yi dañu xaar bis bu door di diggante Sidi Diop ak Wally Seck discours bu doy waar nag barki alxuraan waxuma la bis bu door mais bis bu xalaat ñu tamit koy suba da ngeen di gis bu gën a garaaw xam nga tuuri daa dem kër Wally loolu ngeen gis suba di ngeen gis bu gën a garaaw wala boog tey jii guddi sax tey jii guddi di ngeen gis bu gën a garaaw maa la wax ni